loolu moo tam bés bi macha allah mu di kàddu pour delloowaat suñu borom ci ki nga xamante ni moo di yàlla waaye ni ñu koy waxee rek tey ñu woot nekk ci contexte bi nga xamante ni ñu ngi ci troisième vague corona di waajal aussi li nga xamante ni tey moo di màggal Tuuba ma boole ko ci rek tey naka lañu mën a waajee pour delluwaat ci màggal googu noonu ak fi troisième vague bi toll ci réew mi. màggalu Tuuba nag yaakaar naa ne yàlla am na kersa ci Tuuba. Mhm. ba waxtu wu wootee rek comme daaw yàlla na ko oyofal ba Touba wi waaw bi nag boo ko déggee dafa am rek yu war a jafe am yu war a yomb mm-hmm. yi war a jafe bu yombee rek yi waroon a yomb jafe jamono joo xam ne ñëpp d'accord nañ ni li gën a yomb ci kaw suuf mooy njaaloo ba nga xam ne tey yow nit ki bu ko jigéen oon ci njaaloo mu bañ sax dañ koy daal di ne ku ñàkk fayda la ku ñàkk bopp la mënoon naa profito mënoon naa jël ndaw si ni mel nii daldi ko moom ca boppam ñu yedd ko kon nag njaaloo mënta paase loolu jigéen ñi duñ la du la ne jabari jàmbur laa même bu ko doonee du la ne dama toll foo xam ne jigéen waru faa jaxasoo doonte la jëkkëram la duñ la ko wax maanaam bu ñu amee ngàntit yow duñ la ko biral waaw ñoom biraluñ dara loolu nag bu amee ba mu yem fa mu yem li waroon a yem mooy lan wërsëg day jafe nga xëy soo ba janti so ñetti téeméer tële nga mujj am ñetti téeméer ya mu faaf réer fu fooy xamee ne réer na fa ngay waree euh, fay euh, taxi kalando bi la indi cinq cent mu poñe la boo saagane mu dóor la bañ ndàmm nga dem te mille francs yi du ko mën a faj nga dëkk ci jaaxle mbaa nga waroon a ñibbi fanaan kaso waaw yooyu yëpp yi waroon a jafe dañ koo yombal moo tax yi waroon a yomb jafe loolu pour ndaw yi nangoo sangewu nangoo takk benn takk ñaar takk ñett teg ci sax ay jaar yéetu amul lim amul alxayri amul lenn waaw nay yéetu rek waaw kooku amul lim bu la neexee muy fukk bu la neexee muy cent cinquante la nga ca àttan rek mm-hmm. waaw ndem jaariitu nag amati na waaw waaye am na ñoo xam ne ñoom seen àtte mën naa nekk àtte jaariyatu loolu la ba ca tegu mooy yëkkati wax ju ñaaw dafa gën a yomb wax lu rafet yëkkati wax wax ju ñaaw boo waxee ñu ñu ne d'accorduma waaw d'accord moom mooy lan wax nañu ma sànq ne sax gan ñi seen añ yi pare bu toon wax ne ñun nañ xaar bañ añ ba pare maye déedéet damaa bëgg nag ñu jàng te ànd ñun ñépp ci ne lu ne heure bi ñu ko jox nañ ko ca def dañu ne fi 7 la ba 17 heures bu 17 jotee ñu julli tàkkusaan sëlmal yeewi nit ñi boobaa nag ku añagul bu la neexee añ yéen taajkati añ yi dégg ngeen ko bu kenn dem te añoo kon bu ñu eewee nit ñi 17 heures taaj leen ñam yi ak lii mu àndal ba nga xam ne bu 6 jotee fekk ñépp ngi seeni oto di jaar yoonu ñibbi mais nañ koy defee noonu waaye tey bu ma toppoon loolu ñu toog ba 7 heures ne ma léegi ñëpp añ nañ bu gi dugg na nga commencé ne damay wax genn walla waxtu bi nga xoolee sa montre fekk wax nga ñaari waxtu chauffeur yi commencé kornu chauffeur ñoom boo bëggee dépassé waxtu rek ñoom ñooy régler affaire boobu konkar kar kar chauffeur yi commencé korn kor piip piip piip piip piip piip piip piip loolu ku nekk na ah suñu oto ngay dem suñ oto ngay dem buñ dugut buñ dugut waaye loolu dama bëgguñu dakkal ko waxtu wi waxtu wi la waxtu wi ñu tàmbalee waxtu wi ñu tàmbalee sàngam la waxtu wi ñu pare waxtu sàngam la ndax loolu njàngaleem yàlla la moo wax moo wax ne inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquuta mu ne man maa sant nit ñi julli waaye ca waxtu wa ku julli avant julli am nga julli avant julli laa amoo dara ku julli gannaaw waxtu wa am na ci borom téere yi waaye kooku ay téere ay werantekat la ñu wax ne waxtu woo waratu la ndax fa nga ko mënoo defee jeex na am na ci téere yi waaw ku ñuy wax ibnu Hazm ñi nga xam ne mën nañoo jot ci téere ñu seet ibnu Hazm al andalusi li mu wax ci waxtu wu faat kon nag ñun nañu def yëf yi lu ne ci waxtoom lu aju ci bëccëg dañ ko def bëccëg lu aju ci guddi dañ ko def ci guddi bu yàggul suñu mbokk suñu wëllëre suñu xarit di alxaaji Abdoulaye Elimane Dia di meeru Demet teñ daan ko wooye kalaajo ndax tund wa mu dëkkoon moo tudd kalaajo mu ngi mel ni ku dëkkoon màndaax ñu di ko dàkkante lee màndaax walla koo xam ne dafa dëkk jingili jingili xam ngeen jingili jingili benn tund la wu nekk ci gannaaw pos pësin nen der lañ waxuma pësi gi nekk boog ci yoonu Sokone keere am na fa tu ñuy wax keere am fu ñuy wax jingili sorewut ak ñoo mbaatu waaw ñoo moom mbaatu soose la mooy ñoomi mbaatoo ñoomi mbaatoo waaw kon nag ñuy def lu ne ca waxtu wa maa ngi nuyu bu baax mbokk yi jóge ci tundi ndakaaru yi fasantikoo pikin daagu daan léegi nag am nañu ko def benn mais daagu daan benn quartier la woon ca Pikine dafa bëri woon ay kéwél man ñëw naa Pikine gis gis fa ay kéwél am ñu koy rëbb waaye nag loolu dootu ndakaaru léegi waaw Pikine daagu daan caaroy géej caaroy gaar waaw yëmbal Malika kër jàllu picc benn mba ñetti mbaar benn baraak xam naa mën nañoo ànd de ñetti ànd ñetti mbaar bu wëree benn baraak ah ker dana fa bëri mbëbës Kër Masaar Banqaas Parcelles Assainies ak seen mboolem unité yi géejawaay yaraax te mooy aan ci ngor yoof yoo fi géej jaam na laay ñépp maa ngi rafetlu seen teewaay rawatina waa banqaas Kër Masaar amuñu morom waaye danaa nuyu waa Dañcaadi ak waa Nabaaji ak waa Tayba Ngéyeen ak waa Mago Tafsir ak waa Sodi Sebbe ak waa Caareen ak waa Saare Mawnde ak waa Jagali ak ñi nga xam ne ñooy ñooy luur ak lugge Sebbe di woo Galoya di woo Bokki Jawe di woo waa Kanel di woo waa di nuyu waa Mbuumba di nuyu mbooleem waa Ferlu kon nag euh, li nga xam ne soxla naa ko pour defar bi ñu ma defarloo kër gi ba mu nekk ñaseen laa ke ñaseen la ñaseen bii anawaa rekk ca kanam amul en arrière en arrière bële bàyyee leen ko ñuy en arrière ba fu ñu jëm man oto buy taal di en arrière du ma ca dugg bu ngeen bëggee dugg nag mu ko ci kàmbar nga lay jëlee mbaa ci miir mbaa ci garab ña seen en avant huit huit mu gaaw lii ma leen wax da ngeen ngeen doon ut alal léegi nag wax naa alal na leen alal ut yàlla na leen alal ut te bu leen utee yàlla na leen daj te leen dajee yàlla na bëri waaye nag bu mu leen ëpp doole soo waaye daan na ko ñaan mu ne na nekk sa loxo bi te bu mu nekk sa xol ah ci baaxu yàlla dama bëgg ñu tudd yàlla ab diir ci ni ko ñoom mët yóbbu di defe ci noo xam ne dañ koy seggee tilim tilim yene ca lantinoor ba nga xam ne lu ca jaar ba jàll ci yàlla la jëm te yàlla da koy nangu te léegi li sakk lantinoor bi dafa bëri poussière bi dafa bëri allah allah boo xam ne fay jëmale nit ki ci yàlla mi ngi mel ni téléphone yi bi am connexion ak bi amul connexion ban moo ci dem ci internet bi am connexion connexion yàlla bi dugal leen ko ab diir ndax fi mu ne nii booy wax ak nit ñi danga nga yéeg ni fi mu ne li ngay wax waroon na leen a yëngal te yëngalu leen kon xol yi ñoo baaxul te yàlla moo wax ne ala bi zikrillaahi tatmainul qulub mu a tudd yàlla rek moo mën a defar xol ay ci